ci euh, Café Info euh, yaa ngi ko bind ci français ne ci waxtu wi nga xamante ni centrale syndicale yi euh, ñi ngi woote grève ak débrayage mouvement syndical yi ñu ngi nekk en crise fii ci Sénégal loolu defe naa laal na daanaka domaine yëpp muy wér gu yaram bi mais surtout seetlu nañu ko ci wàllu njàng mi ak njàngale mi muy sooxe goo xamante ni judd na ak grève yeeg débrayage u centrale syndicale yooyu le lan mooy expliquer loolu ak conséquence crise boobu lan lay lan lay jural réew mi mm-hmm. balaa may tontu si question boobu ma lay nuyu di nuyu ñi nga xamante ne ñoom nga toogal. Mm-hmm. di la ne par exemple que li nga doon wax di baalu man je ne suis pas d'accord dafa war a bokk c'est-à-dire que c'est ce qui fait boo xoolee sama kanam kanamu seytaane bi xam nga di baalu bi sax. <laughs> waaw baalu bi fa foore la rek. waaye booy génn ma ko ci tegaat ba mu tànn. waaw ko a pas de problème may chef de guerre. peut-être que loolu mooy def charme émission bi quoi donc. <laughs> chef plateau. <laughs> léegi pa pour répondre à ta question li nga wax ci crise bi am ci monde syndical bi <laughs> uh-huh. euh, démb dégg naa professeur Songué di wax ni que parti politique yi euh, landerno politique bi lu ci nekk dafa bëri ay parti politique deux cent cinquante cinq parti politique uh-huh. et je pense que aussi lu nekk ci parti li ñu nemmeeku ci parti politique yi uh-huh. moom la ñu nemmeeku tamit ci mouvement syndical bi parce que boo xoolee fii ci Sénégal on n'a pas moins de soixante centrales syndicales et je pense que dafa nekk loo xamante ni dafa ëpp et ce qu'on peut dire aussi est que euh, ni ñu gisee li ce qui se passe dans les centrales syndicales boo mhm. xoolee ñetti facteur bokk na si li tax rek crise di am ci centrale syndicale yi bokk na ci euh, mooy guerre de leadership bi problème leadership plutôt bokk na ci loo xamante ni aussi mooy guerre de positionnement ak choc des ambitions ak li nga xamante ni aussi mooy absence de démocratie démb maa ngi dégg benn kàngam bu bokk ci grand cadre bu nga xamante ni kii di euh, janté moo koy jiite nee na euh, on ne peut pas concevoir par exemple cinq grands cadre moo nekk ci enseignement bi je pense que bu fekkente ni ñoom ñëpp ils ont la même revendication c'est-à-dire que seen jafe-jafe benn la seen i mbébét benn la je pense que war nañu xool nu ñu mën a régler problème boobu parce que boo xoolee grève bi ñu xam ne ñoo ngi koy entamé tey jii ñii dañu ne grève ñii ne débrayage donc finalement on comprend même plus doo ah. xam lan la et alors que ñoom ñëpp ils ont les mêmes revendications je pense que mhm. ils doivent ils pouvoir régler ce problème là mhm. donc li ma gis daal li ñuy nemmeeku ci parti politique yi mhm. nemmeeku li nga xamante ni tamit mooy ci syndicat yi. mais on a même remarqué que maintenant syndicat yi dafa mel ni dañoo soppali ku nekk ay partis politiques on voit souvent des syndicalistes qui se lèvent au lieu de de de de, de se battre euh, ci seen yëfi syndicat ak travailleurs yi euh, dañuy préférer plutôt plutôt ànd ak tel ou tel parti politique waxtaan ci yenn ci ay programme u parti politique souvent ñun euh, daf ñuy xaw a jaaxal ñun citoyen loolu moom dafa mës a am hmm. syndicat boo gis rek am na benn parti politique boo xamante ni ci la yi loolu dafa mës a am am na ñoo xamante ne les plus grandes centrales syndicales yi ñu xamoon mooy ay UDEN mooy CNTS mooy CSA mhm. mooy euh, SUDES ñoom ñëpp xamoon nañ ni am na waaw ama non c'est que waaw xam nga SUTSAS <laughs> moom yooyu laay dégg tout peut si ñi mujj juddu la te gi nga gis nga guerre de positionnement boobu mhm. dafa dem ba nga xamante ni dafa créer crise bu baax te ci biir centrale syndicale yi lan mooy mhm. seen problème parce que da ngay gis par exemple ñi ngay faral di dégg depuis une vingtaine d'années ñoom ñoo nekk à la tête de centrales syndicales ba tey ji doo gis euh, koo xamante ni rek dina woote assemblée générale wala euh, congrès pour jéem a xool nu ñuy changé njiit li parce que lan moo ko waral y des intérêts y des intérêts y des avantages te ku nekk tout dernièrement boo xoolee euh, centrale bu mel ni UDEN mhm. syndicat bu mel ni UDEN temps yi dañu am jafe-jafe am na scission ñenn ñi dem nañu lu ñuy accuser ñeneen ñi ñu ñoo ngi accuser Awa Wade ne que Awa mooy secretaire général UDEN mm-hmm. nee na am na détournement 120 millions si biir syndicat bi te xamuñu xaalis bi fan lay jaar mm-hmm. démb Awa indi na ci tontu mm-hmm. ne que c'est des voleurs qui crient mm-hmm. aux voleurs donc c'est des problèmes yoo xam ne tout le temps tout le temps day ñëwaat donc après ku ci mer rek da ngay créer benn scission nga dem créer yow it sa centrale bopp après boo ko créer nga yokk ci benn affaire soit nga nga ne ko change force du changement wala soit nga ne ko rénovation wala nga ne ko renouveau donc je pense que c'est yoo xam ne boo demee xoolee SUTSA parce que boo xoolee par exemple SUTSA SAS aussi c'était un ils étaient très bien partis ñoom ñaar entre Mballo Dia Thiam ak euh, ki nga xamante ni mooy Saliou Faye Daf mais tey ji lu ñu nemmeeku ku nekk dem na yoonam moom la ñu nemmeeku tamit si une sas ñoo ngi ŋàññ ki nga xamante ni mooy Madimba Sock gën a ci bopp centrale syndicale boobu donc c'est des yoo xam ne qui reviennent tout le temps et problème yooyu aussi boo xoolee pa euh, day euh, nguur gi da ciy profito mm-hmm. parce que ñoom syndicat bi syndicat yi tas moo leen gënal parce que booba doole yi dina wàññeeku. d'accord mais. da leen di tamit mën na leen aussi indil jafe-jafe parce que bu ñu xam kan la ñuy euh, waxtaanal. Mhm. donc je pense que c'est un problème. Mhm. mais actuellement syndicat yi nga xamante ne dañuy gis que dañu regroupé wu. Mhm. pour mën a défendre benn même problème yi nga xam ne ñoom la ñuy casse depuis lors mais man lu ma jaaxal mooy ils se sont regroupés et là ils sont partis pour grève wala débrayage en fonction de professeurs yi ak euh, ku ci nekk fi nga bëgg a aw. bu fekkente ne ñoom ñi ngi soog a regroupé wu d'accord aguñu sax ci lan la ñuy def est-ce que euh, seen regroupement bi finalement dina servir à quelque chose est-ce que dinañ leen jox gëdd bi ñu leen war a jox. cest à que mën na servir comme mën na bañ a servir te boo xoolee par exemple ñi nga xamante ni dañu woote grève tey am na ñoo xamante ni ñoom it ils te disent que bokkuñu ci grève bi donc par exemple boo xoolee tey. grand cadre bu ànd ak euh, ñoom ci nu mu tuddati ñoom jante ñoom ak ñi nga xamante ni beneen grand cadre bi parce que grand cadre yi cinq la doo xam ku nekk ban grand cadre la bu Abdou Faati bi dafa ne ñoom ànduñu ci grève bi nga xamante ni ñoom jante moom la ñu bëgg a ànd ak waa waa SAES tamit cest que ñiy ànd ak waa SAES tamit mooy ñoom jante ils te disent que bokkuñu ci euh, débrayage bi nga xamante ni ñoom. Abdou Faati mais finalement est-ce am na union kon. non union syndicalisme moom amul union parce que ku nekk day xëcc. jëmale comment on dit xaw ma ràcc. ràcc jëmale sa kanam rek mu dëll. ràcc jëmale sa kanam ndax mu dëll waaw. ay problème mu dëll bu situation boobu yëpp. pour régler situation boobu yëpp lan moo koy mën a saafara. Mhm. mooy élection représentativité. d'accord te boo xoolee syndicalistes yi ñoom ñëpp kenn bëggu ci élection repré am na ñoo xam ne bëgguñu ko. Mhm. parce que ku nekk dinañ la peese. Mhm. xam looy peser. boo xoolee. ñeenti centrale syndicale ñoo fi nekk yoo xamante ne parce que élection représentativité bi ñu amaloon si 2011. ñeent rek ñoo ci génn mooy euh, euh, CNTS. mooy UDEN non mooy une UNSAS mooy CSA mooy CNTS FC donc ñi si des ay 1 pour cent la ñuy am wala moins d' 1 pour cent donc c' est des yoo xam ni nguur gi nag moo war a jël responsabilité am il règle sa problème la comme ça ñu xam kan la ñuy mën a xeexal. donc mais nag aussi si grève bi nañu xoolaat bu baax c'est vrai que moyen de pression la. mais mais ñu war a dafa bëri. waaw dafa mm-hmm. bëri quoi en fait mm-hmm. et puis xam nañu xalaat askan wi. Mm-hmm. xalaat tamit xale yu ndaw yi nga xamante ni ils n'ont pas moyen pour aller dans les écoles privées ñu dem jàngale. man daal loolu laa gis centrale syndicaliste bi. donc parce yi aussi c'est aussi des parents d'élèves ah. oui c'est des parents d'élèves donc c'est vrai que seen revendication légitime na. am na yoon ak yëpp am na fooy toll da ngay xalaat aussi luy njëriñ askan bi ak luy njëriñ sa doom ak doomu keneen man loolu laa ko gisee Pape merci Adia ñu ngi lay gërëm bu baax loolu café info la woon ñu bàyyi la nga daw ca rédaction ba parce que li ngi waaj a seen conférence de rédaction pour journalu 13 bi